yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné yu ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Aquaterra ndox mi wóor te leer. KPay transfert d'argent bi gën a wóor ñoo leen di may li ci yéene kaay yi. xibaar bi jib na yéene kaay yépp ci wax. tey la ajjuma juróom-ñeenti fan ci weeru décembre atum 2022 koppar yu bari yi nga xam ni France jox na ko lii di Sénégal mu toll ci téeméeri milliards ci suñu ay koppar Amadou Ba premier ministre bu Sénégal moo ko plaidé le soleil suñu jant réew ne dañu ko jagleel wàllu tàggat yaram wàllu culture wàllu njàng meek njàngale mi lépp France moo ko jox Sénégal Dakar Times ne un appui budgétaire de cent milliards de francais CFA mi ngi def fang ci xët bu njëkk nataalu premier ministre bu Sénégal ak premier ministre bu France direct news ne kon nag léegi chantier Amadou Ba yi mën naa tàmbale amatul layam layam yi ndax koppar yi teew na Walfadjri quotidien ne yooyu le koppar moo ñu nar indil jafe-jafe boo xam ni kenn xamul fu ñu koy waxee ndax bor bu bari bi nga xam ni moom moo xoj waa Sénégal loolu lañu Walfadjri quotidien xamal tey jii ci suba enquête quotidien ne la priorité aux urgences urgences yi ñëpp xam nañu ni njàng mi ak njàngale mi la wàllu faj mi ak wàllu tàggat yaram ak yeneen ak yeneen yoo xam ni eh, Sénégal mën na cee faj boobule xaalis réew mi quotidien ne liy faj waa Sénégal kañ mooy njënd mi ak njaay mi nga xam ni moom la ñuy def eh, ci wàllu internet bi waaye réew mi quotidien loolu moo war a doon nag li nga xamante ni nii moom mooy avenir u réewum Sénégal libération yéene kaay ne Sénégal déglu leen fisc bi xoj na Bougane Gueye Dany ak Sen TV ak sax Zik FM bi nga xam ne moom moo ko jiite ndax daanaka juróom daanaka ñeenti milliards ci suñu ay koppar le fixe bi di laaj ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany waaye ci biir libération yéene kaay waa ji ci jëmi boppam nee ne amal lu leen 15 le quotidien yéene kaay ne xale yi nga xam ne dañoo sonn ci biir réewum Sénégal muy enfance en souffrance ñi nga xamante ne nii amuñu at ba jàpp juróomi at ñoom ñoo gën a sonn ci réewum Sénégal Sénégal déglu leen Sud nee na of nag am na boos bu bees kooku kan la du kenn ku dul Serigne Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye kooku Sud Quotidien ne quatorze mois dong moom moo ko dese ngir mu redresser li nga xamante ne nii moom mooy waa Sénégal l'observateur yéene kaay wane la ñu ak premier ministre bu Sénégal mu ne Amadou Ba des attentes balèzes laas ko dañee dikk ak ñun eh, ci SONES mi nga xam ni fexe na ba waa banlieue bi ci jëmi boppam seen mar jeex les écoles yéene kaay dikk ak ñun ci cour suprême bi nga xam ni freiné nañu Ousmane ko di maire bu Ziguinchor ndax na dong la bëggoon mooy yenn ci tur yi nga xam ni ñoo nekk foofu mu soppi ko cour suprême nee na ko uskutu arrêté ko ci di mu gën a gaawee ko la tribune yéene kaay ne Macky Sall li mu bëgg mooy xoj Bougane Gueye Dany sacrifier ay employé yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk kan moo sacrifier maître Ala Diouf ba mu dem fële ca Futur Média wane la fa benn sonore boo xamante ne nii dañ ko copier coller kan moo ko mën a kan moo mun a sauver kii di avocat bi 24 heures chrono dikk na ci ak ñun ci wàllu tàggat yara mbokk yi ñu wax ci quart de finale bi nga xam ni mi ngi toj réew mi Messi ndax dina jël coupe du monde bi loolu laaj la 24 heures samp tey jii ci suba waaye la tribune sport ne vers la gloire Messi Neymar ak ñeneen ak ñeneen ndax daañu jël li nga xam ne moom mooy coupe du monde bi record yéene kaay ba tey ci suñu défense bi nga xam ni moo raw tame yuret seen dong lay def ci juróom-ñaari ci ñetti mat yi nga xam ne Sénégal football na ko défense bi encaissé na ci lu toll ci juróom-ñaari bit lan moo waral lu ni mel am na am na ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci fànn woowu wax nañu ci stade yéen kaay dikk ak ñun ci quart de finale bi nga xam ni quart de finale de fële ko tuddee tey ji ci àjjuma ji ci wàllu làmb guerre ngir contrôler Pikine Boy Niang ak Ama Baldé ndax Boy Niang dina bëre Ama Baldé kasaalika naka noonu ci 2023 bi muy guerre sans merci pour le contrôle de Pikine kan mooy contrôler Pikine loolu la suñu làmba xamal ñu te ji ci suba mbokk yi lii moo gën a fecc li yéene kaay yi wax incha allah rabbi ba suba ci samedi ji. yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné yu ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew ak la télé du peuple Songuanté TV.